al madina travel salum sen info international ak tarixa tijaniya in america si njiital suñu imam muhammad muntaha sakho ñoo leen di bu mag bi di seen wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fu ngeen mën a nekk di ñaan sama borom boole ñu defal ñu jàmm biir ak jàmmi biti <laughs> yenn ci mbokk yi nag ñu ngi tawat wolof yi wolof yu xóot yi ma leen di yéen xamu leen wolof yu xóot man sama wolof yi dara baaxoo ci ci jàng laa nekk <clears throat> waaye eh, kuy doomu wolof rek war nga góorgóorlu ba ni nga rusa defee fot walla rusa wax ne xamuma suñu prononcé baatu tuba war nga def fukkam ci gëstu làkk bi nga nàmp baru sa wax ne xamulo donte eh, jikko yi bu ñuy wàcc ci làkk yi lay tàmbalee waaw léeg-léeg di nga dégg kuy wax wolof doo xam sax li muy wax te daf ñuy dal ñun ñi léeg ñu déglu suñu waxtaan dañuy jéppi suñu bopp ndax dañuy xam ne règle wolof yi eh, respecté wuñu ko defee nag ñu ciy jéggalu ndax <laughs> léeg-léeg rek eh, accent saalum saalum bi dikk waaw te du ko yàq nag mu mel ni tamit eh, leson yi ñuy séddoog yéen ñu ngi ko jëlee ci ndayi téere yi téere yi ñooñ sunna bu ñu xoolee madahib bi ñu seet wax ya ñu sukkandiku ca madhab yooyu ñu boole leen gis ñi nga xam ne ñooy majorité lanay seen position ñu indi ko ñi nga xam ne seen wax mooy minorité ñu indi ko seet ku ca nekk lan la tegtaloo ak ku nekk ca ñoom lan la sukkandiku ba ne lam wax mooy noona ñu seet jumhur la ñu wax ak nañu tontooye minorité seetit minorité la wax ak nañu tontoo jumhur ñu indi ko tegal leen ko ci taabul ji ngeen lekk walla ñu bokk lekk loolu mooy e, solo yi li ñuy def walla loolooy e, sukkandikuwaay li ñuy wax e, lu tax ñu wax ko dafa am suñu mbokk bu baax bu ñu bind ñaari yoon di ñu laaj ban téere lañuy jàng muy al ustaaz alxaaji Malick Ndiaye ñoo àndoon daaw jéeg dem makk mu nekk fële ca zawiya Cheikh alxaaji Malick ca Harlem lu koy nuyoo passage ak ustaaz Souleymane Ndiaye di fa taxawee moom it duruus yu ama am solo ak suñu baay bu baax ba imaam Jibril Jéy ak ñañu bokkal jàkka ji yépp tabaarakallaahu looloo tax ñu leeral ne ay buxuus la yu ñu taxawee ci suñu wàll waaye yii ñooy sukkandiku waaye loo defee démb jàngoon nañu waajib bi aqsaam yi ñu tuddoon ci ñeenti xaaj ñu jàngoo nit ay masail ay question sur waajib muy farata ñu tuddoon ci juróom benni masala loolu nag moo ñu yóbbu tey ci rakki waajib kii mën duub mën duub ci luga mooy madu ku ñu woo ku ñu woo ci dara lu mel ni invitation danañ koy tuddee mën duub gis nga ki ñu tànn sax teg ko ci parlement bi dañ ko fa woo pour mu taxawal fa euh, peuple bi danañ ko tuddee mandóob waaw mandóob ci luxa mooy ku ñu woo waaye ci istilaaxu shaaria nag <clears throat> ci istilaaxu fuqaha maa amara bihi shaariu la ala wajhi l ilzaami ka sunani rawaatibi mooy lu aji yoonal ji kii yàlla digle te digleewut ko ci anam ak waral ni ki sunanu rawaatib mooy julli yi ñuy julli balaa ñoo julli farata lu mel ni ñaari rakka walla ñeenti rakka ñaari rakka wala ñeenti rakka balaa ñoo julli tisbaar ñaari rakka gannaaw tisbaar ñaari rakka gannaaw timis ñaari rakka gannaaw gee ñaari rakkaay fajar balaa ñoo julli farataay fajar muy fukki rakka ñaar yooyu yonentu wax ne ku ko julli ci bés sama boroom tabaxal la kër aljanna yooyu ku ko julli am nga yool boobule waaye ku ko julliwut dara du la ca fekk ndax diglewuñ ko ci anam ak war xukmam mooy yuzaabu faa'iluhu imtihaalan yu yucaaqabu taarikuhu ku ko def de ñu fay la ndegam topp sa borom a tax nga def ko waaye ku ko bàyyi it deesu la duma ndax du farata manduub moom lañuy ñuy tuddee sunna moom la ñuy tuddee masnuun moom la ñuy tuddee mustahab moom lañuy tuddee nafl moom lañuy ñuy tuddee qurba danañ ko tuddee marghub fii danañ ko tuddee ihsaan yii yëpp danañ leen tuddee mandub mandub danañ ko tuddee sunna danañ ko tuddee luñ sunnaal dañ ko tuddee luñ sopp dañ ko tuddee nafl muy naafile dañ ko tuddee xurba muy ak jaamu jaamu yàlla danañ ko tuddee marghuban fiihi luñ xemem ci moom danañ ko tuddee ihsaan mooy lu ak rafetal boo ko defee nag dinañ jàng ak yéen ay question ci mandub <clears throat> pour bañ a guddal danañ indi lu mat juróom-ñaari masala ci masailu man ngir jegeel dégg ñeel suñ bopp masala bu njëkk bi mooy euh, fadilatul manduubi ngëneelam ngëneelam mooy yurfaul abdu bil manduubi ila darajatin aaliyatin inda allah man duub dana tax jàmm bi ñu yëgati ko daraja ju rëy rëy ci yàlla maana ñu yëgati ko ba mu am daraja ju rëy rëy ci yàlla wala ñu yëgati ko bamu mu ci daraja ju rëy rëy fa la cay tegtal mooy xadiisu qudsi yu ba wama taqarraba ilayya abdi bi cheyin ahaba ilayya mimma aftaradtu alayh wama yazaalu abdi yataqarrabu ilayya binnawaafili xatta uhibbahu yàlla mu ne sama jaam du ma jegeñ-jegeñ loo lu ma gënal li ma ko teg comme farata looy wut a jege yàlla na fekk farata ya mat di nga gis ku fanaan ci gàmmu jóge ca gàmmu ga dem ju dem tëddi nelaw du julli fajar juum na doo jóge ci loo xam ne du farata tax mu faat loola farata te yooyu dañ ko tudd rekk gàmmu la conférence la màggal la visité say mbokk la dox dem xew la yooyu yëpp yu baax la waaye bu ca tax nga faat farata baaxatut yàlla mu ne li nga li nga ma mën a jege li ci gën a gaaw mooy li ma farataal ci yow mu ne bu farata noppee nag ngay góor góorlu di ma jege jegelu ci ay naafila nee na doo ca dëñ di ca nekk lu dul rekk ne ma faf bëgg la ay bu ma la fafee bëgg rekk nekk sa dégg yi ngay déggee nekk sa gis gi ngay gisee nekk sa loxo yi ngay songee nekk sa tànk yi ngay doxee soo ñaanee ma may la soo ma musal la góor ga mu ne bu yàlla nekkee sa yooyu yëpp mooy yàlla nekk na la rekk kon masala mu njëkk mi ñaari mbir lañ ciy jàngee ngëneelu mën duub ak daraja jim la mën a jox ñaareel ba mooy mottali ak jàng gi muy jàng wàññeeku wàññeeku ak dammi dammi farata yonentu sallallahu alayhi wa sallama na inna awwala ma yuxaasabu bihi al abdu yawma alqiyamati salaatuhu fa in wujidat tammatan kutibat tamma wa in kaana intaqasa minha shay'un qaala anzuru hal tajiduuna lahu min tatawucin yukmilu lahu ma dayaca min faridatin min tatawucihi nee na li ñuy njëkk xisaab jaam li ñuy njëkk xisaabal jaam bi yowmal qiyaamati ciy jëfam mooy ay julleem mu ne su julleem matee ñu bindal ko ko ba mat sëkk su fekkee nag am na lu ca wàññeeku ngir négligence ak yu ni mel sama borom ne xoolal leen ko ndax am na ay naafila yu mën a mottali lim sànk ci ay julleem ci ay farataam ñu xool nee na sum humma sairul amali tajri ala xasabi dalik mu ne naka noonu it jëf yépp noonu lay mel bu dee asaka farata ji sarax yu naafile yi ñoo koy jang bu dee aj farata gi aju naafile yee koy jàng bu dee kooru farata kooru naafile yee koy jàng moo tax def lu ñu sopp jara xër jara taxawe looloy masalaam ñaar wala looloy masala mu njëkk mi masala mu njëkk mi am nañ ci ñaari yëf masalaam ñaareel mi ci wàllu yuñ sopp mooy hal yajibu itmaamu nafli ida shara'a fihi loo xam ne dañ koo sopp soo ko xasee tàmbali ndax farata la ci yow ngay xàggali ko ndax am nga droit dagg ko boroom xam-xam yi am nañ ci ñaari wax wax bu njëkk bi mooy déedéet mottali ko warut su la neexee dagg su la neexee mottali ndax naafila ci nga sóobu loo ca def ñu fay la loo ca bàyyi kenn du la duma kon soo ko bàyyee kenn du la duma moo xam nga bàyyi ko aslan walla nga naafe la ba ca digg ba nga dagg ko ñi wax loolu lii seen tegtal mooy yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne as-saa'imu al-mutatawwi'u amiru nafsihi in sha'a saama wa in sha'a aftara nee na kii woor wooru gàtt nga wooru gàtt nga mooy wooru naafi la buuru boppam la su ko neexee xàggali su ko neexee mu dog waxu ñaareel bi ne déedéet su ca sóoboo rekk amatul droit dagg ko loolay madhabu abi xanifata lii tegtal ci ñooñ abu xanifata mooy waxi yàlla jam wax ci suuratu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne wala tubtilu amalakum bu leen yàq seen jëf yi comme yàlla tere nañu ñu yàq jëf yi te sóobu nañ ci jëf ji sañuñ ko yàq ak waxi yonentu sallallahu alayhi wa jam waxoon ki ñëwoon di ko laaj julli mu tuddal ko faratay yi bam noppee mu ne ko hal alayya gayruha ndax lu dul farata yi war na ma yonentu ne ko déedéet sallallahu alayhi wa sallam illa an tatawaa laa illa an tatawaa déedéet lu dul nga coobarew ñu ne kon istisna istisna muttasil la boo xasee dugg ca jullik coobarew dafay mujj nekk farata ndax soobu nga ca ndax yonentu dafa ne déedéet lu dul nga coobarew mooy boo duggee ca jullik coobarew rek amatoo droit dagg nee nañ tamit min xaytu nazar bu ñu ko settantalee it naafile dafay nekk farata buñ ko nisiree naka noonu tamit buñ ca sóoboo dafay mel na nisir nañ ko boo fi waxoon tey jii ne nisir naa ne altine ju njëkk ci weer wi dama koy woor nisir naa ko sama digganteeg sama borom donte woor altine bi njëkk ci weer wi nekkutoon farata mujj na nekk farata mi ngi mel ni rek ki jël wirdu tariqa ba mu ko jëlagut nekkutoon farata ci moom waaye bam mu niséree ne bés bu ne danaa tudd yàlla istighfar salaatu ala nabi laa ilaha illallah bu ci ne téeméer suba ngoon bam ko niséree rek la nekk farata ci moom ñu ne kon boo sooboo ci naafila dafay mel ni nisér nga ko waaye jumhur tontu ne li waa kër Abu Hanifa te wax mën nañ koo tontu bañ xam ne taxawut ñu ne nu koy tontoo ñu ne liy tegtale ne lu xasanaat maanaam maanaam laaye ji liy tegtale ne yàqut xasanaat ya nga def mooy laa tubtilu sadaqaatikum bi manni wal adaa maanaam laaya ji lii tegtale ne firiwul ne danga war a mottali naafile gi li muy firi mooy waroo yàq sa xasanaat ni ko yàlla waxee ci suratul baqara 264 laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal adha maanaam bu leen def loo xam ne dafay yàq seen sarax dafay yàq seen jëf yu baaxi lu mel ni sarax ba pare saraxe di ndamu walla di wax ka nga sarax wax joo xam ne waroo ko ko wax ñu ne loolu la laaya ji jublu waaye jublu wut ne boo arrêté wala waroo arrêté naafile goo tàmbale ñu ne tamit istisna bi ci xadis bi istisna bu wér la waaye istisna munqati la moo yanaam bokkut ci wax ji du istisna muttasil maanaam illa an tatawaa mooy waaw lii rekk mooy farata dara lu lii warut la waaye nag bu la neexee nga soobu ci naafila jumhuur it ne bu dee qiyaas fa qiyaasun ma al ndax nizir du sax mukk lu dul ci baat nga ne nizir na te waxi yonent ji dafa leer ne as-saa'imu al-mutatawwi'u amiru nafsihi kii woor kooruk coobare buuru boppama su ko neexee xoor su ko neexee dagg ñetteelu masala mi te dafa mel ni ci la ñuy taxawee ndax temps baa ngi gudd te bëgguñ mu gudd lool ànd ak timis a ngi bëgg a jot fii ci New York ay minute rekk a ci des ñetteelu masala bi ci mustahab mooy bu dee mustahab ku ko bàyyi juz an deesu la mbugalit ku ko bàyyi jum la jumlatan amaan nañu mbugal ko maanaam buñ ne nangam dañ koo sopp sunna la boo ko bàyyee duñ la mbugal ñu ne waaye naam boo boo ko bàyyee benn benn waaye boo bàyyee woon yi nga xam ne dañ leen naa sunnaal yëpp daf lay yóbbu ci benn niveau nag bu very low bu mën a jur sax mbugal mu ngi mel ni ku xam ne dafa taqoo bàyyi witr imam Shaatibi rahmatullahi alayhi def na ci benn qaayida nee na jëf su dee sax dañ ko sopp ci xaaj dafa war ci lépp anna alfiala ida kaana manduban bil juz'i fa huwa waajibun bil kulli mu ne loolu ci la ñuy déggee waxi limaamu ahmad jane man taraka al witra fa huwa rajulu suu'in wala tuqbalu shahadatu nee na koo xam ne du julli witar mukk na kooku nitu ñaawteef la kenn warta nangu seedeem ndax mànduwut mel na ni am nañ ay minute pour indi masala rabia mi ñu indi ko bon ñu ne tamit almustahab mutafawitu rutbati luñ sopp dafa rawante ci daraja maanaam yiñ sopp yëpp yamuñu bi ci gën a kawe mooy lu yonent bi takkoo woon alayhi wa sallam nga xam ne daanaka mosu ko bàyyi lu mel ni su sunanu rawaatib yiñ tudd ci njëlbeen mooy naafile yooyu ngay def balaa ngay julli farata wala boo ca pare ñaareelu darajaay mustahab mooy loo xam ne yonent bi léeg la ko daan def léeg-léeg mu bàyyi ko lu mel ni jullik yoori yoor wala fi di ko wax fay nange julli gu am solo la nag am na ci yenn dëkk yi nag fañ fa ñuy wax ne gune gu koy julli fay gaaw a dee waaye loolu ay waxi kasaw-kasaw eh, la ñetteel bi ci masalaam ñeenteel mi maanaam ci rawanteeg euh, rutaba rutbaay mustahab mooy lu nit di def di ci roy bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu yu ñuy naan ak yu ñuy sol lii de yonent bi bëggoon na ko daan na ko naan nii bi daan naanee lii de yonent bi bëggoon na ko daan na ko sol loolu la ñuy tuddee maanaam ni yonent bi daan naanee ak ni mu daan soloo ci niki naanee ndeyjoor wala dégg nga solo ndeyjoor yooyu sunna la yu ñuy topp waaye nangam yonentu bëggoon na ko di ko naan nangam yonentu bëggoon na ko di ko sol nga ko coy topp loolu la ñuy wax asunanu zawaid mooy sunaay ndollal masalaam juróomeel bi mooy mustahab lay taayal waajib la mooy képp koo xam ne foo ko fekk ma ngay topputoo mustahab yi xamal ne du sàggane farata koo xam ne fu mu toll mu ngi toppatoo jullig naafila xamal ne du sàgganee jullig farata kuy koor kooru gàttangal xamal nga ne xamal ne du sàggane weeru koor naka noonu kuy joxe sarak toujours du sàggane azaka waaye kuy sànk mustahabaat yi boo moytuwul rek mu sànk farata yi moo tax toppatoo mustahab yi daf lay dimbale assurance la garantie la pour nga mën a toppatoo farata yi masalaam juróom-benneel mi mooy sunna ci làmmiñu shaari'u ki yàllaa ko yonantam sallallahu alayhi moo gën a matale sunna ci làmmiñu fuqahaaw yi ndax sunna ci sharia mooy yoon mooy at tariqa mooy manhaj bu boobaa dafay yóbbaale farataak sunna yëpp mooy li yonantu sallallahu di wax ne man sanna fi lislaami sunnatan xasanatan ak ibnu ibnu ba mu eh, jullee néew daal biral fatiha ga daal di ne innaha sunna sunna la loolu mooy yonent bi def na ko maanaam njubal yonent bi la sallallahu alayhi wa kon nag sunna ci shari'u mooy yoonu yonent bi ni ki wax ji wax ne fa man raxiba an sunnati fa laysa minni mooy ku bàyyi samaw yoon boobaa sunna foofu du firi luñ sopp du firi naafila mooy firi lislaam lépp ak la ci aju kon nag loolu lu jar a xàmmee la maanaam sunna ci fiqhu bokkul ak sunna ci yeneen domaines yi niñ ko waxee woon démb rawatina nag sunna ci làmmeñu shari'u dafay matale diine yépp juróom-ñaareel bi te ci la ñuy taxawee niñ ko diggee woon alhamdulilah mën nañ koo matal mooy yenn boroom xam-xami fiq yi dañoo taqale diggante masnuun ak mustahab luñ sunnaal ak luñ sopp ñu ne al masnuun maa habata bi dalilin min alcharci luñ sunnaal mooy loo xam ne sax na ci charia saxu maanaam dalil am na ci ne sax na ci charia moo xam alquran la moo xam sunna la mustahab nag mooy loo xam ne sax na waaye farluk fuqahaaw yi lijtihaad ci la saxe saxeewut ci dalil waaye li lëng te ëpp ci borom xam-xam yi wax ko mooy luñ naal ak luñ sopp benn lañu hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa wa sallama alaykum wa rahmatullahi